ay kumba xaatim caam séré ndey wuri caam mu yow mi <laughs> damay xàppu toog awma toogukaay Miss Thiam awma toogukaay what <laughs> yow ni ko amul toogukaay amul bi si Fatmoussa am nga toogukaay yow da nga fàttali ne toogukaay moo tax ma takk la bëti foo defee casting bi dama garaaw Daba Njaay waxu la dara ba léegi dugg mu ko jox Daba Njaay pour yow dafoo ni ah yow pour yow dafoo pour yow wér nga ok dof naa tuuti rek damaa bëgg xam ndax yaay takk Daba Njaay bindu kan mooy takk Daba Njaay yow mi ne ko man bindu càmm lu sama yor? yoon a ngi ci boo bëggee xam kuy takk dama ñaay demal nga laaj ko sa jëkkër jee mu wax la ka non non non lakk lan lay dox di lakk daba njaay mel ni dof ah lakkuma daba njaay ah mbaa lakk bi méttiwul RFM nag hmm, ko te maa yor organisation yëpp maa ko yor waay fi tey fii lépp sama loxo bi la tegu maa yor xew bi xew bi yàqu na waaye leneen laa leen ko waxee mooy dina leen réeral réeral leen jaxase leen. noonu wala dañ ne dangit moo koy takk dangit mooy takk daawa jaay. et puis sa bi mënoo koo téye. pourtant téye naa ko de moom moo jékki-jékki rek génn waxal boppam. bindu jaam lan la. publicité wu ma ko de. Daba yow xew bi sax nga plus dinaa stressé Bintu Thiam mii moom commencé stressé man damay bañ li danoon sama xarit boobu dal ma. Fatou Daba Ndiaye ngeen nangu ñu lay jox un million Daba Ndiaye xanaa gisoo sumburu mii sumburu mii barki Dembo Ndiaye lañ ko fi maye jox ko six millions sumbu dalaa gën a féete xale ah. suñu classe cinquante lañ ñun. waaw ah. waaye Bintu Thiam noo ko wàññi lekk. et puis yow saa nga waxoon. cent mille invités laa bëgg. cent mille invités. waaw Bintu xanaa réer poste daa Senghor lañ koy defee. xanaa nek fi di loué ay mbana di loué ay bâche di loué ay chaise di def yu kenn xamul te mariage bi jàppaguñ sax bés